daleen ak jàmm suñu chaîne youtube k info hd sama gars yi fii bu ngeen bëggee xam information ci sport ci politique ak aussi ci actualité bu leesaan nag 17h30 li nga mu jot ñu mën a xam sénégal kan lay euh, joganteel pour sax nag sama gars yi ñu bëri tiit nañ ne sénégal mbaadu dajanteeg ak waa égypte encore commentaire yee ngi gën di wéy di wéy rek ñu naan carrément sénégal moom bés bu dajante ak waa égypte moom ñun mu dina leen dóoraat mais ñi si bëri ne nañ waa Égypte dañuy gën a pour ñëw rek maanaam de wan ñu si wan ñu seen doole parce que li may ñaari yoon ñi leen di toroxal mu ne leen carrément Sénégal moom wax dëgg yàlla comme que commencé naa ñam Égypte moom da koy ñam ba faw sa Sénégal moom Égypte jaaxalu ko sama gars yi daal loolu ma nekk li nga xamante ni moo di commentaire bi xew pour l'instant yi ñu si bëri nag ñi ngi naan carrément suba tey booloo wutiwaat ndam li pour l'instant ndam li ñu koy wutee wutaatee mooy entraînement entraînement bu baax a baax aussi tamit supporters yi nga xamante dañuy yóbbaale laser yi ne nañ carrément ngi préparé bu baax a baax a baax kon ku nekk jënd laser préparé mais tamit jàppale ni carrément loolu tamit il faut ñu arrêté ko ñéem xool ñi ñeneen lu ñuy supporter rek parce que objectif bi mooy ñu booloo dem mais tamit li nga xamante ni moom lañ fa war a def nekkul loolu noonu mooy objectif bi quoi maanaam objectif mooy dem soutenir suñu gaynde mais nekkul noonu leen soutenir soutenir yi quoi ba passé nag defoon na fi bu rëy rëy ba gars yi si bëri génn di wax mais tamit jàpp leen ni carrément waaw Sénégal moom wax dëgg yàlla benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar